quartier bi nga xam ne dafa nekkee ci Touba ñu naan ko Surra quartier la boo xam ne at mu jot ndoxum taw mi daf leen di sonal mbedd yuy taa ba ci biir kër yi li nag yàgg na lool mbooleem waa quartier bi di àddu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund saa yu nawet ñëwee rek man su may dem marché damay obligé yóbbu sama doom yi ba ca tali ba sama kër tante boobu ma pàcc leen fa ndax fii wóorut ak xale yi ndax taw bi bu tawee rek kër yi day fees dell ak ndox mënuñoo génn mënuñoo dem fenn jàkk ji sax mënuñu faa dem pour julli ji ndax ndox mu bari ñàkk taxaw gi leen kilifa yi waroon a taxaw ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci nawet bu nekk moo tax sax ñoom waa quartier bi ñu jugoon créer benn groupe whatsapp boo xam ne dañu ciy dajale ay koppar ngir jënd ay groupe yoo xam ne ñoom la ñuy taxawal ci quartier bi ngir mën di pomper ndox mi waaye loole dañ cee néew doole ñu ne. am na groupe ñu woowee solution ñoo si jaayante fukki at nangam ngi ndox mi ba mu duggal kër kilifa rek lay commencé taxaw benn groupe ñoo solution am na kër yi bari dañoo génn. jaaxal lool nag ñu xalaat benn solution groupe bi koñ bi ñu bëgg wut ñeenti groupe yu mag teg si koñ bi fii ba Mbadiène ak solo gi yëpp groupe bi ne mi ngi jar deux millions nangam ñu bëgg ñu si joyetu fukki millions nangam te yaakaar naa amagun deux millions. kon loolu ab xaalis la ñu ànd si toise kanam ñoo ñooñu wut pexe nag bu ko indee addiya ba ñoo ko jënd groupe bu baax wut équipement xam na ñoo koy seetu bu tàkkee ñoo koy defar. essence bi lépp ñoo koy seetu feeg ñetti weer xam ne lu si mën a am rek ñoo koy seetu baax baax baax machine pompe yoo xam ne benn bu ne rek la muy jar ëpp na deux millions waaw te loolu tamit xam naa dañoo tijji benn groupe boo xam ne ci lañ koy dajale ba pare maam yaakaar naa ne amagul lu ma 2 millions euh, kii 2 millions ba pare xam naa li muy jar pour machine ñu jënd ko rek ëpp na 10 millions moo tax bu ñu gisoon ku ñu ci jàppale ku mel ni état bi wax dëgg yàlla dinañ ci arrangé lool ndax gis na ni tamit aussi état bi avant élection yi rek indi na fi Antoine Diome indi na fi lu mat 400 million di ko séddale wax dëgg yàlla 400 millions yooyu bu ñu ko joxoon ñu dugal ko fii nii ci assainissement wala ci yenn gox yi wax dëgg yàlla kon taataa yi mën na fee ñàkk. ba pare tamit aussi état bi gis na ni seetaan nañu torop ndax gis na ni plan ORSEC def na ci 902 mil euh, milliards yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn xamul fu mu jaar ndax taataa boo xam ba nga juddoo ba léegi avant Macky Sall ba nga juddoo ba léegi mi ngi fi. te ñu naan fii Sénégal def nañ cent 902 milliards yoo xam ni kenn mënu laa wax fu 902 milliards yi jaar wax dëgg yàlla loolu doy na waar am réew nag boo manee da ngay jiite boo mënul nga jox keneen. Touba ca kanam Touba ca kanam ñoo ko doon wiide ñu fo yii yëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla dañoo ñoo ko wàññi ne ba mel nii nag yàlla baax na ñii ñu bare bare de génn nañ nag nii kër gi sax xanaa dem ngeen fi waaw waaw moom day waaw yàlla daal baax na. ah xaar ku ñu ci jàppale rek ku ñu ci mën a dimbale rek ñu ngi lay woo nga ñëw fekk ñu fii ci Soura ci poste courant kër Mbay Mbuub dend kër sëñ bu soo kër sëñ Xalifa Lo ñoom mënuñoo génn sax en tant que ay kilifa mënuñoo génn doxal seen benn yitte suñ kii mii Bousso dafa génn moom it obligé wut feneen fu dëkk te ñun bu ñu amoon fuñ dëkk sax dañuy dem obligé dëkk mais amuñu ko il faut nit ñi héberger ñu ba ndox bi jeex mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier bi nga xam ne moo di Soura li ñuy dund nawet bu nekk dafa métti lool ñuy sàkku ci kilifa yi ñu saafaraal leen ko ndax jafe-jafe yi yàgg na lool. état moom du ñuy xaar dañuy jëfee ñu ànd moom koñ bi bëri na député mos fee ñun amul lu koñ bi kon koñ bi boo xoolee kër yi bëri génn trop borom kër yi bëri yàqu neen ana xam ne seen bâtiment yi dañuy yàqu. am bi jaar xam ne ba suuf si yëpp borom borom fi ñàkk mën a un million te tey bu tawaatee fi nii nii ndox mi daa yëg ba kaay fu ne nii suñ koñ fi daal solution mooy wut fi ay addi yu bari ay milliards den génn xaalis bi denc bi dafa dëkk bi Serigne bi dëkk bi politicien bi yàq leen dëkk bi yëpp xaalis bi bu ñu jëloon xaalis bi daf dëkk Serigne Touba bii kon gan gu ne day ñëw jaal xuus dem yoonam am wax dëgg yàlla waa koñ bi def nañ lin man waa koñ bi couragé wuñ les bara parce que maa am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla liggéey waa koñ bi maam ñii def lin man mais affaire bi day ëpp doole ndax daaw andi woon nañ fi ay machines yu bëree bari bari di ŋàcc mais dañuy teg machines yi ŋàcc ba ngoon asamaan si tawaat taw boo xam ni sax maam liñ fi jëlee ci journée bi li fi ñëwaat euh, daf koy ëpp moo tax fii canal dong dong dong dong moo ñuy jagal te kanaal nag ñun wax dëgg yàlla amuñu doolee def ko waa koñ bi amuñu doole def kanaal état ki état moo am doole jooju maam xaalis bi muy indi fii di ko jox ñenn ñi ñu koy politique ak ñooñu te te fi jëlee benn victoire bu ñu ko joxoon wax dëgg yàlla ñu def ko fii ci kana eh, fii ci suñu gox yi ak gox yu bari ci Touba ba léegi ndox mi jóge na fi. waaw daf ay ñaxtu mënta weesu nga nekk ci ndox àdduna sépp ñëw di la seetaan ngay génne say bagage dëkk bi yëpp ñëw di leen yërëm di leen génne seen i bagage fii kër yi ko wër yëpp dañoo génn jur boobu ma ne la xale bu tuuti bii bu duggoon ci ndox mi keroog day lap ndax ndox mu bari man su ma duggee ci ndox mi doo ma seen li ngay sénti man bariwul bariwul ñi woo nag autorité yi ñu ñëw jàppale ñu en tant que li leen war ñu def ko. Mariama Gassama ci quartier Soura la dëkk moom dafa génn këram ndax mënatul nekk ci biir kër gi ndax ndox mi ndax ñaar la boole muy ndoxum taw mi ak ndox mi nga xam ne day balee ci suuf di ko ci nappe bi. ndax ndox mi ci suuf lay génnee day leer nañ day ball di génn. waaw soo xëyee day bal di génn weex tàll bu demaatee mu ngiis weex tàll mel na xorom moom mooy génn ci kër gi waaw ndax xam nga ne xale yi lii da leen di jox sax siburu ndax fii fi ne nii fii yooyu bu timisee ngay commencé takk sa musikeer ëtt sax boo ci nekkee da ngay takk musikeer ndax xam nga ne ndox moom boo ko baaxut yoo loolu la de ku ñu dimbale rek moom ñu jël. Touba li ci des néew lool bëri quartier yu am ndox ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba mu nekk lees war a jóg ndax mën naa indi gàllankoor ci dem dikk bi ci biir màggal gi.